baabul li ab bunt la fil aqdiyati ci àtte ya wa shahaadaati ak seere ya léegi ba jëm nag ci mbirum xeeti àtte ya ak seere ya wal bayyinatu seere xalal mu daañu war na aji aji kalaame aji jiiñe wal yaminu ngiñ xalaaman war na ka nga xam ne ankar weddina loolu nga xam ne waa kalaame nit nga ne diw mii day yegale naa ko jëm na ma fay war ngaa sàkki seere boo amee seere rek moom nit nga taxawal ñaari seere yoo xam ne seere leen la wala waxu ñu bi di waate ne kon yaa am dëgg mu daal la koy ameel moom yow jaaman ak ak ñoom ak ñoom deesu ko faale bu ñu wedd itam deesu ko faale waaye bu fekkee amul seere nag kon moom day daal di waat rek ñoom ñoo ko demal loolu yëpp ci wàllu mën a xalaama nan dara boo ko jiñee te amul seere yoo ko saxal moom mi nga ji ni nga wax ne ko waatal rek dem sa yoon mu daal di jeex wala yam ñu na te kat déet ngiñ di war xataa tas bi tambati saxee alxultatu jaxasoo ba ay junnatu wala tuuma ja kazalika naka noonu xadaa la àttee xokkaamu ahlil madinati àttikati yi madina ndax yooyu dugg am du boo nee diw mi amal na ma nangam mbaa seqoon na nangam te taxawaloo ay seere moom boo taxawalee seere moom mu jeex na nga wax la waaye bu fekkee taxawaloo seere dama ñëw waatuloo waa ji ngir ñoom ñoom mën a dem dañuy seet fa boo xam ndax mas ngeen a jaxasoo jaxasoo goo xam loolu mën na caa xew wala pour mën na koo taq ci moom déet ndax dañuy dem rek nga yem nit daal jàpp ci loo xam ñoo ne kii dañoo soqoon nangam loolu xam nga lu mën a am la bu dee ko ñëw yàlla te nee nañu jàpp ne faaw ñu seen jaxasoo dafay mën a xew seen diggante mbaa tuuma taq ko ci loolu waaye bu loolu boo ko tuumaalee te amoo seen seere dañ koy wax ne ko dalal sa yoon rek kenn du ko waatloo naa ko waat bi miim door a dem déedéet du jar mu waat bi miim day jékki-jékki dem aw yoonam rek moom man waa Madina waxee waxad xaal wax na Omar ibnu Abdul Xafiis Omar ibnu Abdul Xafiis ne tax ba xam dama sosal nit ñaa ci ñoom nit ñi faq bi wetam ay adde di xaduma naa ci kam li nga xam ne tax ba soo fas nañ ko mu ne sa góor ci soote ay jaay Omar ibnu Abdul Xafiis ku baax la woon dana mën sax ñu koy limaale ci xulafaa yi dana ko def juróom am na ndax moom juróom loolu la ndax mu baax moom maanoon moom la woon kat adduna ni ñu doxee nit ñi dañu gën di bari doxee gën di bari caay-caay comme soo loolu ñu seet rek ak yoo xam ne dana déggoog ñu nit ñi def te du dàqoonteeg alxuraan ak sunna te kat xam nga ne loolu lu feeñ feeñ la xam nga suñu jamono ji mu jaxasoo yu baree mën ngaa am mën mën ngaa am lante nit koo xam te ji ci bis bu ay bi rek bis ma si bu tey rek mën na soo gisee xam nga xamuñ leen genn jaxasoo ne am mbaa dara te loolu mën ngeen a jaxasoo tey jii rek jàppante am moo tax na kon bu ñu bëggee sart ne faa yow dañu xamoon seen diggante ak jaxasoo mbaa tuuma ñu gis mu takk ko ba door leen door ko waat loolu yooyu dafa xaw a doy waar moo tax loolu ñu wax kooku rek jàpp na wa ida nekk na moom ñooñu ne ay muddaxa dañu kalaame xale yi ci moom dañu ne ay muddaxa kañu jiñ xale yi ci moom moom lañ ko wax rek waaye bu dëgg-dëgg mooy ragal waat dañu kalaame daal bu ragalee waat lam yokk ba deful àtteel nit taawe bi ñeel aji jiñ taate ji xattaa yaxale fa mata mu waatee fii maa ca la nga xam ne yat bàyyi dana woote fii ci moom maa def fan ak xam loolu bu fekkee dañ ko tuumaal ñu la am say seere nga ne ah wax dëgg yàlla amul seere ñu ne waaj waatal kon te dem sa yoon mu ragal waat kon bu ragalee waat day mel ne kon lañ ko jiñ dëgg la mu ne kon kat buñ jékki-jékki jox la dëgg dañuy waat la yow dañuy dellu jiw bi ñu ne ko noonu léegi ndegam moom jiw nga ko ragal naa waat yow ni koo kalaamee kon waatoo nag loolu la ñu dellu jiw nga waat ko soo waatee ñu doon laa jox nag dëgg yi. am na ñu ñëw loolu bu fekkoon ne jiw bu wër la lay aajowoo lay waatee na ko jiw waaye bu fekkee dañ ko ne loolu man daa yooyu la man daa yooyu la woon maanaam nga xam ne daawul ittiwaam rek la woote kamaal rek la man demoo ci ne ko yow yow dañ ko ne man daa yooyu la woon ko waaye nag léegi waatal ñu bëri nag ragal waat moom bu aajoo yoon nga waat dañ la dox dëgg saasa waaye bu fekkee dañ koo jiyeel ndax wa taxqiq maanaam jiw dëgg-dëgg nga xam ne nga caa dégg ne ko yow rek tuumaal kooku moom bu ragalee waat faaw mu dogal waat gi nga waat ko moom nag fi mu toll noonu la léegi ñu ngi nag kooku mën di déggee billaahi nekk na ci yàlla ëllëg yi nga xam ne laa ilaaha illa benn boor illaa huwa dara moom nee na nag bu ngeen di waat day waate ci billaahi lëf yi laa ilaaha illa huwa di wax ne waat naa ci yàlla man caa teg nag lañ cay teg waaye xalifa tamit waat xaayi man mbir mi aji taxaw وعند منبر الرسول أكثر منبر وننتبه صلى الله عليه وسلم في ربح دينار كار دينار فأكثر تبلغوب لأن قد من يخطي بفك يمت مقارا دينار بعد أبقو تنك جمدنا ci waat ci waat dañ ko woo ñëw ba taxaw ci ñu dara yonent bi taxaw foofu day day taxaw bu toog day taxaw waat dañu bëgg rek ñàngal loolu ba nga xamee ne bërëb bu sell boobu des taxaw fa waat loolu bar na ñu ko ragal loolu nag kon dafay gëm yàlla loolu moo tax ñu koy indi ba foofu bu fa xëy mbir mi nag ci biir mbir mi ne woon ya xalifa dana waatal fi zalika ci loolee fi jaami ci jumaa ja wa may bi ak ci ab bërëb mu xam fi mu dina màggal mi ci moom dana bu fekkoon doon na dina it waaye loolu mat na kaaru dinaar mbaa ma bëggoo dañu xëccoo boo waaye it faaw dañu seet bërëb dañu màggal bu dee jumaa ja mu dem ba ci jumaa ja ca mihraab ba mu taxaw fa rek daal di waate foofu ndax rek ñu lépp koo nangal ndax rek dina ko bëgg mu ragal bu yoo xam ne fa dana waat ak kaasu ak yéefar billahi ci yàlla xaw suñu xam jëmm fa muy màggal bu fekkoon ne yéefar la it dañuy seet fu mu gëm nga xam ne ragal na faa waat lu amut yóbbu ko ba foofa mu waate foofa bu dee yëfeet ba bu dee nasaraan ba bu dee jaamu kat xëram sax wala jaamu kat sawara mu ko yóbbu fa mu gëm rek mu waate foofu wa isa wajara dem am na ab taalibu aji jintaate ji mooy ki kalaame day yëmatal seere bax di woon ñu mat léegi ci gënaa ngiñul kañu jiñ lam yekkoon yoo xam nekkutoon xalima di xam bihaa ci seere soosu fëgg yokkoon atteef la foo ñëw ko bihaa ci seere sa wa in kaana dem nekkoon na xalima di xam nag seere si fala tuqbalu kon def ko nangu mënu ci moom dana bu fekkee da ngaa jiñ kenn ñu dañ koy kalaame ñu la am say seere nga ne woo ko ñu ne kooku waatul dem sa yoon mu daal di waat ne dem yoonam gannaaw bi na nga amee seere dañuy seet bu fekkee seere yi naka jëkk xamoon nga ko te waxoo ci dara ñu amee seere baa rek bàyyi ñu atte bàyyi kéemoon ñu ñu waat ñun ba dem ba noppi boo nekkee seere des ko dund bu fekkee xam woon ne am nga seere yi nag seere yi nag seen gannaaw bi nag ba gannaaw lañ ko door a xam nag kon moom daal leen di woo daal di attewaat atte bi moom daal lay jox dëgg rek kooku ñu doon dem gis ko demee ci àttali ci seewu daal la jox dëgg waxat ko loo xees nawet ne toqbal def na nga seere ni ko ci woon am nañu ne bi nga xamee seere yi te yooyee leen defee dara ba waa ji miin ba dem ba lépp itam bu tee rek boo waxee ubeel ngee seere yi ñu jëlee si ko àttewaat ko jox la dëgg waaye mu leen wax bi nga jëkkal wax daal ñu bari ci lañu ànd mooy boo xasee xam ne am nga seere te ndee leen ba waa ji nga jigéen miin moom ba demee yoonam am seere bu baax ngay àttewaat la jox dëgg loolu daal moo gën a wóor وقضى دفن أبي بشاهد انتسام سيرا ومن الأنجي في الأول تعالى بوب خطو بو خامي على الله دا بو كو توبé ci alal lay delu bo ci amé ben sérét manu mëna waat delu ci mom ñu joxo dëgg rawante nga am ñaari sérét manu waye ben rek mom boko amé tamana waat delu ci rek ñu joxo dëgg wala waqu da joxul até nak bu jalé ci lolu fi nikahin ci sey aw talaax ñu la posé bu hadd ñu la jotam am yo xam nak ñëna mom ben sérét ñu mënu ko doxal bu dee lu mel ne sëy wala fase wala lu waral gétam yooyu faaw mat ñaari seere mënta ñàkk te bu dee bañ njaaloo sax ni ko xoon ñeenti seere la wàcc yooyu moom benn seere moom ci doy wala fi dañu xam ngeen du caay yoonu ci dara ci tey aw nafsi wala bakkan illaa ma xaw xasaanat ndara mu ànd ak ndiñ la fu nafsi ba bakkan la dana bu dee dara ci tey sax maanaam nga xam ne kata dara bi moo ko tey sax ba tey noonu la benn seere ñu ngi doy xanaa bu fekkee tuuma taq na kooka ay bokk waa ji dund rek ngir ni ko yeesoo woon ci jógee na bunt bële loolu day moo koy jëf ngir yaa koy saal bu dee bakkan bi it noonu fekkee ne tuuma takk na kooko dam laa joxe waat jëf ngir yaa moo koy saal ak tuuma ji waaye doon bi rek ak doon fële bi ñu koy waxat ki la waxee suñu yëpp daa def naa tey bi saarik ci loolu si jiwaas si jam jam la kooku nag bëtan naa tey li maanaam damay maase ci ne jam jam moom doonte kookaa ko tey sax mënees na ca àtte benn sëriñ bi bu dee jëm jëm kese nga xam ne bakkan bi wala yooyu mu ne waxat ki la waxees ne loolu day mbiru loof suñ toll mooy ñu sukkandikoo kon waxe na loolu nga koo jàpp jàpp ne lam sukkandikoo mooy loolu bu réer wala tëjoosu du dagan shahadatu nisaay seeres jigéen ña illaa fil amwaali dara ci alal ya ene jigéen nag moom la ñu nangu mu seere ca mooy loo xam ne day nekk alal mbaa moom ñu doon ci alal rek waaye jigéen bu bokk te loolu mën na sëy wala fase yéen a noonu jigéen di ca sewee jigéen moom day sewee ci xëccoo boo xam ne alal la mbaa boo ko toppee rek mu dellu ci alal te kat loolu ne ëpp mra atin téeméeri jigéen kam raatoo ni muy nangu rek ñaari jigéen wa zalika te loolu ka rajulin mi ngi mel ni ki góor waahid ko jenn yépp daa def na attee bu zalika ci loolee maxa rajulin ànd ak genn góor aw maxa yemin wala am na ndim fii naa ci loo xam ne yow gës la mu dagan fii ci loolu shahidin benn seere ba yeneen am ndim daa waxoon ne jigéen ñi boo ci amee ñaari seere yu maandu genn góor rek lay wecce nga xam ne kon boo xasee am lu mat ñaari jigéen ba mu ëpp ko am nga benn seere ci misaal rek bu wóor kon bu dee loo xam ne benn seere ngiñ doy na ca kon jigéen ñooñu nga am mu mat ñaar mbaa mu ëpp ko bu giñee boole ca rek te loolu mooy lépp lu aju ci alal mbaa yu leelu ci alal loolu ci la ñuy doyloo benn seere ngiñ su boobaa kon boo ngiñee boole ca mu baax ba tey bu ñu soxlaa ñaari seere nga am nag benn seere bu góor ak ñaari jigéen ba lépp ñaari jigéen ah su boobaa ba tey kon léegi dañuy daal jàpp ne kon am nga ñaari seere yu mat kon loo ji loo xam ne jigéen sañ na caa seere nga am ca ñaari jigéen baal ko ëpp ñu maandu nga am genn góor boole ca ba tey loolu kon da ngay am ñaari seere yu mat waaye nag jigéen ñi moom lu ñu bari bari bari moom doonte de téeméeri jigéen tam mbaa muy julli sax du tax nag ñu mën a weesu taxaw taxawaayu benn seere bu góor dong jigéen ñi lu ñu bari bari duñ tax ñu mën a wecci ñaari séere yu góor déedéet benn séere bu góor dong lañ mën a wecc te bu dee jenn jigéen moom dong du doy boo amee benn séere bu jigéen ci lu ñu soxlaa benn séere du tax mu doy nga xam ne borom lu mel ni alal boo amoon benn jigéen bëgg buñ bëgg giñ boole ci du ko tax a baax ndax benn jigéen bi mënta wecc benn séere bu góor wa shahaadatu imra'atayni seeres ñaari jigéen fàqal dong fi maa ci la nga xam ne laa yettalihu di wër alayhi ci moom ak rijaalu góor ñi minal wilaadat ci buur mooy istihlaali ak ak tàkku tàkku mooy mu leen bi juddoo ndax joonaam jooyam wa sifi ak yoon moom jaayisat ak dawan la ñoo ne lépp loo xam ne buur amu ca yoon ni ki am doom ak bu mu amee doom ndax joonaam jooyam nit ak xam ne xeeti béréb yooyu ak daal moom dafa góor amu ca yoon mënees na caa doyloo seeres ñaari jigéen ñaari jigéen rek daal luñ ci wax mënees naa jàpp ci loolu ndax loolu góor la ca amut yoon moo tax wala te boo su dagan shahadatu xasmin seeres aji xuloo dañ koo xam ne ngeen a xuloo woon mbaa mu xuloo woon sa baay mbaa sa yaay mbaa sa doom loolu wóorut xam nga ne bu nga xasee xuloo rek mbaa mu xuloo woon sa yaay mbaa sa mbaa sa bàyyi mbaa sa doom rek wóoruti maanaam loolu du la mën a seeral xañ la dëgg du la mën a seeral musiba dañ laa seeral aw yiw yow ndax jàppal da nga xuloon yow moom bu la seeralee aw yiw loolu daa am ko ndax du ko wax di amut waaye nag nga seeral la musiba yow duñ ko nangooti ndax xuloo bi gën na caa feeñ voilà benn ñun di caa jële ku ñu tuumaal koo xam ne ci dañ koo tuumaal ci diineem kooku dañ ko wóolóodiku kooku gis nangu seereem waaye léegi ci diggante doyoon na léegi ne wala yokk dal jëfu nangu ilal xudóo na day maandu ya su waxam loolu rek dana génn waale kee mu génn léegi mooy kooku ñu tuumaal loolu tuumaal rek lay seere mu daal doy wala te jeesut dagan shahadatul mahdoodi seeres ku ñu gétam koo xam ne dafa ne luñ koy gétame dañ gétam ko boo bëti ko bëgg a seere bés ko nangu koo xam ne فتنين ولا تجوز الدم شهادة المحلول سيرس بن جدن كو خامل جدن لن كو نخاف جاد نيون بو ور كو جدن كو كو سيرé ديس كو نانغو دا وقت كانم نك بو فكي دا فتو بنا بيدي سيرé ci leneen lu bokk tak loola ñu ko ko mom des na ko nangu waye lam def bu jëfën ko mom des ci nangu séré ben yoon wala shahadatu habdin bi tajamu séré jaam wala sabiyun bi tajamu gone wala kafirin bi tajamu yofar kii nangu seere ci lislaam day nekk gor du nekk jaam day nekk mukallaf du nekk gone day nekk julit du nekk yéefar wa ida taabu moom tuub na al mahduur ko ñu gétamoon fissi naa ci njaaloo daa wax njaaloo waaye bu doon leneen tam noonu la kooku daf ko nangoo shahaadatu mu seereem illaa fissi naa dara ci njaaloo doon naa ko wax léegi koo xam defal luñ koy gétame mu ne njaaloo mbaa leneen bañ gétan ko ja boo wéti koo tuub nag ba nga xam ne tuubam sell na bu dee seere te leneen lu bokkut ak lam defan ba jotuñ ko jël kon dees na ko nangu waaye lam xas defloo ba jotuñ ko jël da cee bëgg moroom ndax rek ndax bëgg bëgg gàcce ga tegee ko bu ci bëggee seere dees ko nangu
ولا تجوز الوغن شهادة ابن سيرس دوم بغور من أبوين من نار واجر ولا هما بجوزنا سيرس جار واجر لهو من دوم بغور dafa wax ne nag mën laa seeral sa nekk sa baay jox leen dëgg yow itam mën laa seeral jox la dëgg ndax seen di ngeen demante tax na da nga leen a seeral mbaa ñoom ñu seeral loo xam ne bëggul la bëgg a tax rek ñu seeral la ko waaye mën naam amut wala sooju du caagee na seeras jëkkër ñu soojatu ñeel jabar wala hiya du caagee na seeras jabar loxo ñeel jëkkër jëkkër jabar kenn mënu cee seeral morom mu jox ko dëgg mu jox ko njariñ la seeral ko njariñ déedéet ndax loolu wërut وتجوز نيدوان شهادة الأخي شارس بوك الحجل ما أجمانو لأخيه نيل بوكم مانا بفاك يومك يمان نمان كو خمنا خمنا يالا من فانكن فانكن يالا يالا جرال نغلل خلاتو توح البوك خلاتو سير البوكم أو مو تفك أمد xam nañ ci ne maan goo xam ne daal jox na mbokk mu dëgg seeral ko dëgg waaye xam na ne yow daa am rek loolu toon du ko wax te wax mënees na ko nangu ولا تجوز الظلم شهادة مجرد سيرس بمنط في كتب جيفن وخم أدنى جسم جيفن جيفن تجي جابني كوكو بسيرة ليس كنمو أو مظهر ولا أجفايا لكبيرة جيل بكار بري وخم dafay feeñal lu yàlla aaye te di ko di ko lakk lakk sax mel naan sàngare daan wala yooyu wala di jëflante ci biddaa lépp ñu koy xam kooku moom xamatuñ koo seere yoo dañoo dem sax ba nga xam ne dafay suufee suufee maanaam am na loo xam ne nii mën naa wees nii ci firawr mu ci sàcc lu tuutee tuuti wala bu dee peese ci bés gi wala muy peese ci balaas di ko sàccaale xam nga loolu jëf yu tuut lay jur waaye ku koy def soo doon koo seeraloo ndax xam nga ne tey def loolu boo tuut bu moytu seeralu amut mën naa am ne seeralu amut mu ne loolu dañ ko moytu jëf lu loolu mënul tuuti waaye jëfal seede yi nga xam ne borom jikko bi soo koy def boo ko mëtta seede wax wala jaarin di caa jënd aji ñaar di njëriñ nafs ñu jëlee ci boppam dama koo xam li muy seede boo ko toppee day mel njëriñam lay ñoddi bés na nga seedeem dañu mel ne maa yoo tey bu mbokkan alal mënaa di jiñ kenn ne alal naa dara ci alal ji nga dëgg cee seede ni wax na dëgg fekk yoon naa dam koy lool xam maa yoo naa bokk alal ji kon boo seedee ba loolu saxit ñaar ñoom ñoo koy bokkati ndax xam nga da ngay seere li nga wax bi ñëw it ñoo koy bokk ñoom duñ ko nangu wala baa fi indi caa jëm aji aji ñu war am xaalis boppam kooku nag mooy safaan bi maanaam li ngay seere dañ ko seerloo bu nangoo li nga wax it nga am lu jëm si am cee day mel ne moo teggi ko loolu mu mel ne aw bu la fekk yow na bokk ko kenn jiw na bor jiw na bor ne joxe na ma sandis moo xam ne day jóge day jóge ci bu ma jaayee delloo ko ko tema na bok ay jaan nga wadi ne bu ma ko jige ma wadi ko ne do jox mo dara nga bëgg dugal laal wax ne dama jox ko dara mu ne tek mo da ngay bañ rek bu lo saxé da fay mo sa ndifa mo bu ay bu bok rek loolu la jige mo wax nga mo yaa ngi fagal la sunu ko ne non dis ko nangu wax la wëru bu ma ron dugg yàlla xam na ma ron dugg tam wala wasi ndi ko ñu ko ñu denk ñu yottu ni ñu ak dëggal xam nga jamono ci l'islam bi islam do wax jëm dañuy seet ku yore mbiram yore alalam yow mi nga xam ne waaye jiw mbiram yore alalam yow da nga da nga ne seeral jiw bi da nga ñu jël si ci loolu ki bu nee bii ñu day amaloon na bàyyi jiw bi nangam yow moom yow moom jiw bi doo ci mat seere ndax yow amaana tam lu saxal loola rek nga wax bu alal bu sax ba ñëw ci yow rek bokk ci la nga yor ak jiw bi sa doom rek lañ ko jàppee ñu la yorut وتجوز لغة أنك شهادتها سيرا حاله كجيم به seere ci ko julit mooy seeral ko musiba maanaam bu kenn ne julit bi day bàyyi amaloon na nangam du fekk ngay ngay julit bi loolu bu fekkee ne yow loolu xam nga ne am na sooy ba ànd ca xam nga loolu ñetti dama koy seeral alalam moo mën a génn tey bokkut alalam mën a dugg boo nangoo boo seeree ci alalam génn tey mu nangu ko ndax xëy na dafa ne yaay ko yore yaa fekk la ngay seere di dëgg rek waaye bu fekkoon ne amatoon doo ko seere walaay boos lagan تحجب النساء ما ملوك جيون ولا تجريهن بكاجون شينك جام سيري ما ملو ما وحنا كي ما ملو بس بسنا بس بسنا كو جاب مي سيري جام سيري ما وحنا كي ما ملو بك بكن جام سيري xam nga ki ñoo di seere bi yàlla dogalee moo ko xam ne xam nga dañoo yoon ko xam ñoo xam maa nga jëkk ñu doon sukkandiku ci moom léegi nag nee na wax ne bii ñu nit na seere bi sukkandikoo ko jigéen mënu ko wax ne bii ñu netu seere bañ bañ koo sukkandikoo jigéen mënu ko ka koy defee góor lay doon waaw ko wax ne bii maanaam nit na seere mbaa bii matu ko loolu jigéen du ko def góor rek koy def wala yaqbal defal nangu fi taskiyat ci sellal seere illaa man dara koo xam ne yaqoon lay wax ne xadran aji maanu la digganteel ak boromam bu ko dem dëkk ñu borom la digganteel ak nit ñi nee na boo dee sellal seere maanaam boo wax ne bii mat na seere da ngay boole ci ne moom kat ku maanu la digganteel ak boromam bu ñu gërëm la ci ni ñu jëflanteeg nit ñi loolu ngay boole seere ko ci kooku wala yaqbal defal nangu fi taalika ci loolee wala fi tabli di caa yoonu ci jam nga seere waaxidul kenn te it nee na diw mat na seere kat kenn doyu ji diw matul seere it kenn doyu ja kon lu mu ci mën doon bu dee jam gi seere ne diw matul seere mbaa wax ne diw mat na seere faaw ñu ñëwee na ko ñaar def waaye kenn doyu ja waaye nag bu kenn seere ne mat na seere kenn seere ne matul seere ah soo dañu teylu ko topp ko wax ne matul seere ba xam moo mën leer kat ndax na leen daal loolu mën a leer وتقبل دفن منه شهادة السبيان سيرس بنيا في جراح جم جميع قبل أن يحصلكو تجكم يتقلقو أو يدخل ولجكم يدقو بينهم شدقون تكبر ما dana ben way bu jappante ci àll ba ba ay jarante am ca kon bu ngeen doyalee rek laaj leen dafa ne ko ba kenn ko moom sa kër nag dogaloo leen tam ba sol leen xam leen xel su boobaa ku mënees naa sukkandikoo seen wax man wax nañu seere ca sukkandikoo seen wax waaye nag li ñu daan mooy bu ñu xasee tàqalikoo ba ñibbi ñu leen di sax ay xel maanaam noonu la bu bu la laajee noonu nangal rek ñu laajee nangal leen bu fekkee nag dafa leen dogale ba waxante ñoo nag léegi day la seen wax di wéru ci waaye bu fekkee mbaa jotuñoo tàmboo ba mu leen solum xel nag dogale nga leen dugg seen diggante du mën caa sol dara ci ñoom kon mënees naa nangu seen wax وإذا اختلف النيتين المتبايعان نيار جاينت أنا ما تجاي تجند رك بستغلفكم دلوف البائه الجاية فهو أخو فتت من جاب تلولا المفتاح الجند جا أو يحلف ولا مميات مومت ويترى تميشت أنا يفكر من جاينت يان كان أول من خطوه بوحل مانج لجاينت يور من كدير تلندن فتنا جاينت كان يفكر بنا يوبت لأنه خطوه من جاينت يور kon dañu wax ki jaay ne ko waatal ne téeméer nga jaayoon su waatee ne téeméer laa jaayoon da nga nangu woo li wax yow muy jënd ba tey baax na bu fekkee nangu woo ko nag nga waat ne woon juróom fukk laa jugee woon yow na nga jëwoon téeméer su boobaa ñu toqale leen nga dem mu dem mu yóbbu jaayam mu yóbbu sa njëkk wa in faxtalafa ne woote na al mutabaax yaani ñaari wootante mooy ñaari xëccoo rek fi seen ci dara bi ay diisinaa loolu naka lañ seen loxo xaruf xalafa kon ñëwaat ñoom ñaar waxu ci ne te séddaleef ko bay na seen diggante dina bu fekkee ñaar dañuy xëccoo dara kenn ku ne jàpp ba ne maa ko moom te mënuñ cee dugal kenn bàyyi morom bi kon kenn ku nekk day waat ne man maa ko moom ñu séddal leen ko ci li jara wa in aqaamaa ndeem taxawal nañu bay na day ni yaari soore xudduwa kon atteef bi ax dali hinaa ci gën jaa maana seen bu kenn ku ne taxawalee soore su la sooreel bu kenn ka moo gën a mandale ay soore kon ka gën a mandale ay soore ñu jox ko dëgg fay bu sawara dem yemoon nañu ba tey xalafa kon ñu waat ñoom ñaar wa kanata mu nekk day naxoo seen diggante
daa waxoon ne bu kenn ku ne taxawalee seere ci ñoom ñaar ñuy xëccoo loola te kenn ka gën a maandule ay seere kon kooku lañ koy féetale mu ne nag bu fekkee ñoo yemoo ci ay seere itam maanaam yaari seere kenn gënu caa maandu sa morom ba tey kon lañ waxoon rek ñu séddali leen ko ñoom ñaar ñi koy xëccoo wa ida rajaxandeem dellu na ashaahidu aji seere ja baxdal xukmi ci gannaaw atte ba oxrima kon fayloof ko maa la nga xam ne atalafa sànq na ko bi shahaadati yi ca seereem sa in atarafa ndeem tudd na ne annahu naka moom shahida seere woon na bi zoorin ci neen qaalahu wax na ko ashaabu malikin àndaalay malik nee na bu fekkee ne aji seere ji nga xam ne moo seere woon ba tax attekat bi atte lam atte daawul bati ko wax ne man kat li ma seere woon du dëgg daw cee deltu gannaaw su boobaa lay mu ne sax bu bu nangoo ne li ma seere du dëgg sax lu ci dara gannaaw ba bu leeree rek ne moom li mu seere du dëgg rek dafa ñëme yàlla doom su boobaa bu fekkee day loo xam ne yaari seere koy saxal moom mi dellu gannaaw maanaam moom mi leer ne daa seere lu mu xamut dañ ko wax ne ko fayal genn wàllu àq ji maanaam ki nga xam ne taxoon nga yoon fayloo ko yow lam fayan fay ko genn wàll ga niki bu fekkee daa seere woon ci ni du amel nag julli bañ saxal loolu moog keneen moom nag moom mu deltu gannaaw ca seereem mbaa gannaaw bu daal mu leer ne moom yim seere xamu ci dara su boobaa kon day fay ka fayan junni ba ngir ay waxam da koy fay moom mii di seere si juróomi téeméer bu fekkoon ne ñoom ñaar ñi seere woon ñëpp la ñu wëlbatiku deltu gannaaw nag mbaa wëlbatiku na leer ne yi seere xamuñ ci dara su boobaa ñoom ñëpp ñooy fay kooku ab junni ndax li àttekat bi àtte woon bu fayloo ci ab junni moom du ca deltu gannaaw loolu day wéy waaye nag kon looy léegi ñoom ñi seere woon ba tax mu àtte lool ñaari seere gannaaw ba bu àttekat bi àttee ba àggal ñëw bëti ko deltu gannaaw mais luñ seere xamuñ ci dara mbaa dañ wax mu dëgg luñ seere lu dëgg mbaa gannaaw ba mu leer ci ay firnde yu wóor a wóor la àttekat bi àtte woon moom dara du ca deñ waaye ñoom nag képp koo xam tegoon nañ ko jenn àq ci seen seere ñoom ñooy wëlbati ko fay kooka wa man xaala ko wax ne radatu delloo naa ilayka jëme ci yow maa la nga xam ne wakkalta ni wakkiloon nga ma alayhi ci moom aw xalaa ba yi wala ci jaayam aw wala mu ne dafa atu jinnaa ilayka jëme ci yow famana xoo njëgam aw wadixataka wala sa ndénkaan aw xiraabaka wala sa xiraab fal xawlu kon wax ja xawlu koo waxama
dana bu fekkee da nga ko wax ne ko waaw am na ma la joxoon ne la fayal ma ko moom muy la amal kat nee naa la fekk ma fa bii ba joxaat na la ko mu ne ko déedéet joxuma ko wala nga ne ko amal am na la doon jaay la muy la jaay naa ko jërëjëf delloo naa la ko mu ne ko déedéet delloo ma ko wala mu ne sax jaay naa ko ba mu jar ma jox la njëgg mu ne ko déedéet jox la njëgg wala nga ne ko ana laal doon kon mu ne la ah nga laal ma ko ba jox la ko wala nga ne ko ana xiraaq alal xiraaq bi ñu si bi ñu seqoon mu ne ah loolu joxoon na tàkk rafet la woon nañ ba nangam ak nangam yëpp nga weddi ko loolu lépp ay waxam la ñu dégg maanaam moom la ñu ay waxam la ñu jàpp ndax dañuy jàpp ne loolu lépp moom moom moo nekk dëgg day fi ko dindi loolu lépp yow yaay ñàkk rek fal xawlu wax ci xawlu wax waajaa mooy kooku la ñu jàpp ay waxam yooyu duñ jàpp say wax ومن قال كوخني دفعت جينا إلى فلان جنجدو كما أمرتني بك أن أنا فأنكرته بفلان بومومي فحل الدافع طلرنا أجدين البينة سيرة وإلا بفكين تخوني سيرة دمنا كل مغادك dina ngay ñëw ñu ñëw tag lay ndax so ram ko wax nak amana nga la joxon la fayal mako borom bi tibbi mu ne la dama dem fekk ko borom bi tibbi dañu delloo la ko loolu ñoo yeesu lay tay na woon dañe fay na ko borom bi tibbi borom bi tibbi joxu ñu dara ah foofu moom du yem foofu moom faaw mu wut ay seere ñu seere ni joxoon na borom bitig bi lañ ko ko joxloo fekkee andiwul seere rek ñu fay la ko wa kazalika naka noonu xalaa wal yi ay taa mu war na kilifa juróom ya al bayanatu seere ni annahu naka moom an faqa dund leen alal ja xalihim ci ñoom aw dafa wala ji na ko ilayhim jëm ci ñoom nee na itam bu fekkee dañ laa dénk ay juróom dana aajoo nga taxawal ay seere yu seere ni alal seen alal ji def nga ko ci ñoom mooy dépensé nga ko ci ñoom juróom yi mbaa boog bu ñu kàllafee ba nga ne yor seen alal seere yu seere nga ne yëkk yëkkati nga seen alal jox leen ko ko defee kon sa jàndar wàcc wa in kaane doon nekk nañu fii xabaanati yi ci yaram suddi ko kon dëggalu def na fi na fa xott ci dund ba fii naa ci la nga xam ne yus yi gën a jaadu dana bu fekkoon ne dangaa wax ne seen alal ji dundale maal na ko ñoom juróom yi ñu seet ne ni wax ne laayal bi toll daal ak biir bi nga xam ne moom la ñu yore jaadu na ci nga def ko ci ñoom muy jaadu na nga dépense ci alal ji du toll noonu ci ñoom waaw su boobaa comme da ñu ne ma li nga wax wax la dëgg donte amul seere itam waaye noonu dangay danga ci gis nag boole ci ne leen gis moom la ci wax wasuuhu yéeneente jaay sun aji dagan la yéeneente moom mooy defaroo rek dagg xuloo bi ci kaw juboo kooku ne loolu sopp nañ ko sax ndax jekk ji xu xëccee ko xuloo moom dafa gënat illaa maa dara la nga dara loo xam ne jarra ñoddee na ilaa xaraam jëm ci ajaaraam nee na kat bu ngeen dee yéenante da ngay seet ba xam ne ngeen yéenante ku ko seetoon ci wàllu jaay jëmante mu daganam déet ndax bu la jiñee ak junni jëm weer yi dee nga bëgg koo jox fi saasa yi saasa juróomi téeméer ngeen jigéente te xëccoo bi jeex du dagan waaw kooku loolu waa dagan ndax kon day mel ne dañu weccee xaalis ak xaalis te du nekk loxoy loxo loolu lawetin boo xam ne teewut kon day aajoo ni ngeen wéy noonu tey bu ñu ko seetloo ci wàllu jaay jëndante it njëgëb la ñuy jënd mu dal dagan kon yooyu noonu tey nañ seet loolu waaye jëf na dagan xalal iqraar yi ci kaw saxal wal inkaar yi ak weddi nee na nag mën ngaa yéenanteeg moom gannaaw ba nga nangoo ba noppi mën ngaa yéenanteeg moom itam gannaaw ba nga gàntoo lu mu lay jiiñ ni ki mu jiiñ la nga ne ko waaw kon léegi nangu naa waaye nan yéenante ci ma jox la nangam te xam ci xuloo bi jeex wala nga jëkk weddi ba noppi ne ko ah déedéet loolu dama nañ ko wax rek waaye amul nga dara weddi ba nga jëkk weddi te mën ngaa yelwatiku jubóo moom ci ngeen yéenante nga jox ko nangam te xuloo bi jeex ñu dimale ko foofu da wala ne walbatiku nangu ba noppi yéenanteeg moom awut walbatiku weddi ba noppi yéenanteeg moom ba tey awut da ci nekk mën naa nekk su ko defee nag loolu loolu ci saa bi dong lay dagan waaye tey bu la nit nee boo ne nit tey amul nga junni mu weddi ko xam nga sa xol ni amul la dara gannaaw yi wëlbati ko yéenante woon waaw kon boog dañu yéenante ci dagan ne nga junni bi abal naa la ko te fay gi jot na kon naa la jox ñaar téeméer yi te xuloo bu jeex kooku naa dagan moom mu jox la ñaar téeméer ndax xëccoo bu jeex waaye du tax mu dagan ñaar téeméer dagan ci yow jàppal ne dagan xam nga yow li nga ko jiñ amatoon nga xam ne moom ku bañ coow la rek bañ coow dina ko jaral jox la dara ndax ngeen yéenante la rek moo tax nga def ko yaa ngi nangu lu araam te boo liggéeyee attakat bi xamu ko adduna xamu ko waaye yàlla moom dana ko attewaat kon jàppal ne yéenante day dagan ni ci zaahir rek ci attakat bi ci adduna waaye ah walaxira yàlla mu xamoon baat dina ko attewaat wal amatu jëbër ba alawaar rek bay aji war te te sa wajji mbir mën dana sëy xala annaha ci kaw ne naka moom xurratun ngor la fali sëy bi xaaj ñeel na ab sangam wax bu ak jëlam wa wax bu xiima ci wala di ak jël xayma doom ja yoonu xukk na ci bisu àtte ba la fa ñeel ko daa bu fekkoon ne jaam bu jigéen boo xam ne kenn na ko moom dafa dem ba ci foo xam ne xamuñu ko fa mu daal di war ni man gor laa xam ko ko takk ba am ca doom borom jaam bi na ñëw dox ba yem ci yaa kii dafa jaam bu jigéen a kooku kon nee na jënd jaam bu jigéen moom da koy jël am wérante doom ja nag moom du ko mën a jël waaye dañ ko doon nag moom du ko jël di ko defub jaam déedéet dañuy seet bu doonub jaam lay xaymaam mooy lañ ca war a fay tey bàyyam daal di koy fay titee ko wa man istaxaqa ku yeyoo amatan jébir xat wala dawub xat wala dat boobu jur na fa la fay ñeel na ko qiimatuha xaymaam wa qiimatu waladi ak xaymay doom ja yoomal xukma ci bisub àtte ba wa xiila waxees na it ne akusuha da koy jël rek wa qiimatu waladi ak xaymay doom ja wa xiila waxees na la fay ñeel na ko qiimatuha xaymay yaay ja faq dong maanaam bu fekkee dangaa yooyu ab jëbër yooyu ab jëbër mooy dox rek bu fekk ko ci loxol jaamur joxe firnde ba yoon ne la yaa ko moom loolu rek mooy yooyu bi ñu wax kon noonu kon boo fekkee sa jaam bu jigéen ci loxol jaamur waaye kooku moom jub lañ jotee ko jot loo ko ja waaye na wax nga ci yoon ba ne yaa ko moom ba yoon nangu ne yaa ko moom kon nee na bu fekkee fekk nga ko mu jur am nga kon doo jël doom ja doo jël yaay ja yépp nga fay bàyyi dañ jox la xayma yaay ja ak xayma doom ja doo ci yóbbu kenn ci ñoom ñaar loolu mooy wax bu njëkk bi mooy fa loxo xiimatu aw xiimatu wala yi wax ñaar yi dañ yaay ji moom dañ ko jël jëmm ji ngay jël waaye doom ji moom doo ko jël dañ lay fay xayma ji nga yóbbaale muy xayma doom ji waaye yaay ji moom doo jël kooku moom ya nga weesu woon kon ñoo bokkoon wax ñetteel bi ne déedéet doom ji doo ca wax dara moom doom ji doo ko jël gis la jox xayma ja yaay ji doom ngay jël xayma ja waxee la loxo xiimatu a faqat maanaam jëbër bi sax doo jël jëmm ji yóbbu doom ji waxaaluñ ko moom doo ci laal dara ci doom ji ci jëmm jëm ba xayma ja waaye jëmm yaay yi ci bopp lañ lay fay xayma ja nga dem illaa an yaaxu fa mbada bu dafa jàpp illaa an yaxtaara illaa an yaxtaara mbada bu dafa tànn ak tamit njëgg fa yaaxu fa tam koy jëlee ñu ne xaasu bi ci aju daan ji jël ëllëg fi ja nga xam ne baaxaa jaayan na ko leneen ne yow jàmm jigéen bi da amoon ku la ëpp doole rek nangoo ko ci yow dem jaayaat keneen kon nee nañ boo dikkee ba fekk ka ko war ñu koy àtte ñooñu ci ñooñu ci àttekat bi ñu koy àtte bu la neexee ne ki ko nangoo ki ko nangoo woon ci man ci doole nga gën njëggam ko jaayoon rek nañ ma ko jox njëggam ko jaayoon laa yóbbu ñu jox ma ko su boobaa ñu jox la njëggoogee xam ne waa ji ko nangoo woon yow ci yow ci yow ci yow ci doole dem jaayaat ko kooku moo lay fay njëggoog nga xam ne moom la ko jaayoon wala kaana donte nekkoon ne bii bii xaasi jëm ci loxoy aju daan jël fa xaalis kon war na ko alxaddu jotam wala du xooti doomam ja raqiixun ab jaam la maa ànd yaay ji bi rabbi xaa ñeel boromam nee na bu fekkoon ne ki nangoo ji yow jaam bi jigéen bi ci doole yoon da koo fekk ci loxoom di ko àtte kon nee na bu fekkee ni moom si moom la fekk mu am ci loxoom wax nañu àtte ba ci gannaaw dañ ko jaamuwaat dañu nangu jaam bi jigéen delloo la ndax yaa ko moom nangu doom ja delloowaale la ki nga xam ne moo ko siif noonu ba am ci doom dana jàkkaarlu doomam tam ñu koy defal jaam te du ko sañ a bañ ndax doole rek la ko foqal ci woon kon dañuy def doom jooju mu di jaam ànd ak jaam bu jigéen bi te du ci mën dara wa mustahiqul ardi ay yooy suuf baxda an xumirat ci gannaaw ba bindee leef ko boo ko defee noonu kooku yenn foofu day jiñ xiimatal ximaari ci xayma dundal ba xaay moom bu muy aja taxaw nee na boo waxee ne suuf si maa ko moom ñu ne xaa nga joxe ay lay ci yoon ba woon ne waa wax nga dëgg waaye fekk na am na ko yoon nag moom ba jot caa tabax ba am jot caa jëmb ci garab te kooku kat njub la njub léegi ci woon da koo jëndoon bàyyoo mbaa mu doon ko bàyyoo waaye nag ñëw nga wax nga rek ne yaa ko moom ba woon ne la wax nga dëgg ndax fiin bi nga joxe daal moom mu su ko delloo gannaaw kon neen dagal fekk nga kenn def ci peen dañ lay wax ni nga fay ko peen bi li fi tabax mbaa li fi jëmbat ci garab fay ko ko daal jël lépp ndax dagam suuf si woon jox na la ko boo fayee peen bi ci kaw boole ci lépp yaa ko moom fa in adaan leen bañ na dafa xakon jëm ilay jëm ci moom al mustari aji jënd ja fiimatal buqaati xaymay pàkk ba bara baraaxan mbir mu dig ndooneer bu la nee fay ko peen ñu bañ dañu wax waaji ne ko yow fay ko njëgu suuf rek suufu kese doo ci defagal benn tabax defagoo ci genn garab njëgu suuf kese rek fay ko ko fay ko borom suuf si ndax suuf si rek la moom kon mu daal lay fay njëgu suuf rek daal yi moom moom lépp léegi ndax lu fa nekk ci kaw moo ko fa def te suuf si fay na la xayma ji fayin awaan doon bañ na moom it kaanaa kon ñu nekk ñoom ñaar chari kaw ni di ñaar lay bokkaale bi xiimati naa ci xayma yi la nga xam ne li ko lu waaye ñeel na kenn ku ne bu kenn ku ne gàntoo lañ ko wax loolu moom suuf si léegi dañ la fayal peen bi moom lépp nga bañ ka nekk ca nekkoon ñu ne ko fayal xayma suuf si yolooru suuf si te moom lépp mu bañ ñu wax ko ñeen bokk leen ko ci kaw kenn ku nekk yolooru lam moom loolu day wute bu fekkoon ne ca Dakar la xam nga ne jënd suuf sa mooy ëpp waloor tawax la ci kaw wala bu dee ci Touba nga xam nga foofu suuf dafa seer waaye xam nga ne bu dee ci àll bi moom la ci kaw rek mooy seer ñu tabax ak garab waaye jënd suuf sa lu doon dara du am benn waloor kon nag noonu noonu di wute rek noonu ngeen koy bokkee kenn ku nekk rek la waloor la moom la féete woo wala xaar si bu aju daan jël nag moom lu umaru def na ko digal bu xal yi binaa yi ci buddi tabaxam wa zarhihi ak ndawam wa shajarihi ak ay garabam bu fekkoon ne moom ki nekk ci suuf si mbir lañ rek loolu rek la ko foqal ci woon te xam ne suuf si biyee ko moom mu nangu mu ëpp ko loolu rek nangu ko bu ko yem jàppee ba di ko waatee koy wax ne ko delloo suuf si nu meloon loolu la foon lépp ci peen bind ko set delloo suuf si nu meloon waaw bu ko tabax mu ne ko tawal say tabax bu ko garab mu ne ko buddi ko set naafiri ko nu meloon na nga ko fekkoon
insha ndem soob na ko moom mi nga xam ne moo nangu woon suufas jaamur dal cay tabax dal cay jëmbata yooyu aataahu kon jox ko rabbuha borom suuf si qiimata dalika muqdi xaymay loolee ñu toj wa shajari ak garab ya mulkan mbir mu mu ñu las las mooy buñ ko buddee ba sànni ko mu tëdd ci suuf man nga ne mulkan mbir mu mu ñu sànni waaye las gi lañ gën a xam ci wolof ba ada qiimati ajri man ci gannaaw xaymay bay ka nga xam ne yaqlaaw dana buddi daalika loolee dafa wax ne moom mi nga xam ne moo nekkoon ci suufu jaambur ci kaw doole yoon ne ko dangay buddi say garab sànni fële toj tabax yi maasliwaat ko ba suuf si mel ne meloon nga delloo ko borom dane bu fekkee ne xolam añaamit mën naa bàyyi garab ya ak tabax yi yëpp borom suuf si léegi téye ko tey seet ko tojoon tabax yi buddi garab yi ba mu nekk ay lasit yu xayma jay tollool bu ko defee borom suuf si fay ko xaymay loola waaye nag bu fekkee ne seetoon nañ ne xayma yi toj yi ci tabax yi wala xaymay garab yi ñu las gannaaw buñ ko buddi woon ba las ko ci misaal war naa mat téeméeri junni bu njëkk-jékki fay ko téeméeri junni dañuy seet buñ ko doon tojlu maanaam bu ñëwee woon kenn di ko tojloo tabax yi ak di ko anloo toj yi ak di ko budloo garab yi ak di ko anloo lasit ji dañuy seet payu kooka buñ ci génnee payu kooka ci téeméer junni nag door koo fay la ca des di ko dune ah li dee ko bëggoon a toj loo nit anloo ko fii ba mu set ne ko dindi tojeet yi ba budul garab yi yëpp bu koom set kon faaw nga fay ko ci misaal fanweeri junni mbaa ñeen fukk su boobaa bu fekkee dañoo xayma ne xaymay loolee day buñ ko tegoon ba mu daanu garab yi tam lasu dana war a mat téeméer waaye kon xaymay ka koy dindi ba suuf si mel na meloon des na ko ci fay ñeen fukk kon jàppal ne waa ji amoon doole ba nangu fi jàmbur yi su nangoo ñu jox ko xayma itam juróom-benn fukk rek lañ koy fay ndax génn ci xayma yi ki nga xam ne buñ ko doon deflu moom mooy war a def loolee maanaam mooy war a buddeeg tojak ana yépp ñeen fukki yi ma wax ñeen fukki junni laa ci jumb ndax téeméer junni laa waxoon ci bu fekkoon ne xayma jën noonu la toll wala shay addi dara alayhi di ko war a fiimaa ci la nga xam ne laa qiimata déet xayma lexoo di ko ñeel baxdal xalxi ci gannaaw buddi ga wala xëdd mi ak màbb ga maanaam loo xam ne lii am na valeur ci lim taxawee waaye ku ku fekkoon ne toj nga tabax yi mbaa buddi nga garab yi moom bu amati valeur li ki peinture bi nga xam ne moom la ñuy peinture tabax xam nga léeg-léeg mu nekk peinture bu seer waaye bu ñu xasoon toj tabax ba peinture bi du amati valeur lu mel noonu nag buñ dee xayma liñ ko war a jox moom mi nga xam ne mooy njublam ba tabax ci suufu jàmbur kenn du ca xaymawaale waleeru loolee lu mel ne peinture rudd dana delloo alxaasi bu aji doon jël alxaasi tamaroon la xanaa ndaa xam ne bu nit ëppee doole nit nangu waxoon bu ko jariñoo mel ne bu dee fas bu di ko jariñoo mbaa bu dee fas voiture bu di ko jariñoo mbaa bu dee kër bu di ko wéy di fayoo mel noonu yëpp daal bis bu ko woon jàppee lépp lu mu si jariñoo bu delloo jëmee da ci boole delloo wala xeet njëriñ yooyu yëpp ولا ربها تجدل بين الله بغير خاسر كل أجر الجل dama ko xamne lool yam waran ci loxom ni tax rek ci yoon bu nangu ci loxom waaye moom ak njur la gis ko ci yoon dañ ko koy bàyyi mbokk di ci tu awal sàcc la mbaa ku ci ku nangu jël rek moo ko bàyyi loolu bu ko yoon toppee ba war ko génn ci loxom itam lam ci jot a jëriñoo lépp moom leew na ko doon kenn ko wax ne ko fayal li nga ci jot a jëriñoo وولد دنجة في الحيوان تندرو وفي الأمة أكيد بيربة إذا كان دون نكنا أولد دنجة من غير سيد بايك وتكون سنغو يأخذه بنك جل المستحق أجيوجة والأمهات يلوعية من يد مبتاهم تلوخ الأجي جند أو غيره ولا كدونا لأن بفاكيني دلا من سجور نك أوفاس بام بام ولا دلو ميو wala sa jaam bu jigéen jamono jaam amee nga dox nag ba fekk ko ci loxo nit boo xam nañ ko sàcc woon ci yow mbaa dañ ko nangu woon ci yow waaye daal dem nga ba joxe saw lay ba woon ne la yaa ko woon nga fekk nag far mu am foofa doom waaw kon nee na jëmm jëwal da nga koy jël bu dee jur ga fasu jigéen yow mbaa mbaam mu mbaa naaw da nga koy jël jaamu jigéen ba itam da nga koy jël dafa ne bu fekkee ne day jëbbër ba te doom dañ ko fekkeel kooke ko wax duru ko kii dañ ko fekkeel doom joo xam ne doomu jaaloo rek la waaye kooku duru ko kan ko ci loxoom duru ko kon ni waxee dangay jël yaay ji jëlaal doom jo itam yaay yëpp ngay jël am doom ji duru ko bu fekkoon ne moo juróon doom jo nag moom te gis nga nam ci jote moom bu am jub lang kon doom ji lañ la waxoon rek dañ ko fay dañ koy dañoo fay xaymaa doom ja te nga bàyyi fa doom ja waaye doo yóbbu doom ji di ko jaamal ñu wax ne kon daa mel ne bu fekkee ne ab jur la wala fas la wala leen la woon da nga jël yaay bi jëlaal doom ji itam boole ci waaw yaay jëlaal doom ja moom moo ngay nag yoroon ko nag bu fekkee ñu jaayoon ko ko nag mooy dabi ko ko jaayoon rek ñu jënd ko moom waaye yow daal dox nga bayam ci yaa ko moom yóbbul yaay ji yóbbu doom ji rek moo xam da nga koo fekk ci milieu yi matkaar ci loxoy aji jënd aw xëy yi wala ko moom ñoo ci am wala na xasaba ku fëkk wala ku daan jël amatam jëbër sama watti ahaatoog mu laal ko fa wala duhoo kon doomam ja raq yoxon ab jaam la waxale te war na ko alxaddu jëtan loolu ak baamu la boo réer koo xam ne waxal na ko dala ko waxaat loolu rek koo xam daa pidoo nit nangu jaam bu jigéenam dem joteeg jaam bu jigéen ba njaaloo lañ koy jàppe dañ koy jotante bu ci amee doom ñu jël doom ja def ko jaam booleeg jaam bu jigéen ba jox nga ko moomoon dëgg la wa islaahu sufli defaraat suuf ga xalaa saaxibu sufli war na borom suuf gi te wax ne bu fekkee day bâtiment yoo xam ne yaa moom la ci suuf moom moom la ci kaw yow mu féete suuf kon yaa war a defar bu baax a baax ngir sàmm kanam toox ba ca sa kaw bañ a daanule te xam nga yow mu féete suuf moom boo daanoo rek daal daan daanewa daanewaaleel ka ka nga xam ne moo la féete kaw loolu ëpp naa def wal xasobu war na koy bant ya li saq fi ngir téeg maanaam ngir mën a balafon xale yi ci kawam nee na sax yow yaa war a xadd kaw gi da nga xam ne mooy la féete kaw moom xadd xadd bi yow la war ndax xam nga ne boo xaddul kaw gi doo amul néeg ñu ne bu fekkoon étage la rek yaa moom étage bi féete suuf yaa war a xadd ba nga xam ne ci la féete kaw dana mën a teg tabaxam ba nga xam ne moo ko moom ci sa kaw waaye xam nga ne boo xaddul rek yow asamaan daa dox sa diggante moomu kon nag yaa war a xadd loolu ba taaliixul xurafi ak tóob baax ya wala tóob tabax yu ndaw it xale yi war na ko mais jamono yi nga xam ne ci la ñu defaraat bi nga xam ne moo féete suuf bu aajowoo ñu tóob ñu tóob ñu tóob tabax bu féete suuf dëgëral ko ba tey ci kaw bañ a daanale foofu yooyu jamono sax yaa war a tóob muy yaa ko war a dëgëral bu baax ngir ko ci kaw bañ a daanale dafa waxee ndem doo dina ak suuf lu suuf ga wax ko dima te jegeef koo màbb fekkee ne suuf ga dafa doye di ba jegee màbb jur boobu koy defaraat sax yaa war a tuub dëgëral bu baax ba nga xam ne jur boobu ngay defaraat ba la féete kaw du daanu le xataa wasliha booba muy defar wayu jibaru def na ko forcé xalaa an yusliha ci mu defar ak yóbbu yi wala mu jaay mu mën ci koo xam ne yuslihu dana ko defar dina nag loolu mi nga xam ne yaa féete suuf bu ne yaa féete suuf rek mooy am na ko la féete kaw ndax ba nekkoon ci ñaareelu étage am ko moom sa kaw ñetteel tam du tee féete nga suuf ci boobu wàll su boobaa nag dangaa war a defar balaa kalaa féete kaw yàqule ndax boo daanulee mu daanule kon nag dañ lay forcé ci nga defar baa nga jaay ko koo defar waaye doo bàyyi noonu di yàqal ko la féete kaw wala darara bu lor ku la lorut wala duraara te bu lor ku la lor wala andis la te ko fi andi rek ngir anamu feddali rawante ne léewu bëgg wax itam ci mbiri dëkkandoo fala yaf xam lu def maa loo xam ne yaduru day lor bu jaari yi ci dëkkandoo min fatxi kaweetin ci ubbi ak faneetar xaribatin bi aji jege yokk suuf ba dina woon ñu jaaraxoo dëkkandoo min xaa ca moom dana jekki-jekki bëtt falanteer boo xam ne boo ca taxawee di gis mbiri si dëkkandoo bi sës ci yow loolu ëpp naa def bu fekkee mën laa ñàkk bëtt falanteer da ngay bàyyi sa digganteeg moom foo xam ne bu bu ubbee fan falanteer bi itam du rek sàkk bi sës ci yéen ah bu sàkk bu sàkk bi ngeen seq bu ubbee falanteer boobu loo xam du la woon ci ay mbiram dara ay fatxi baabin wala ubbi ak buntu xubaala te baabi yi ci jëful buntam maanaam bu ubbi bunt ba àggal bu ubbi bunt ba jàkkaarloo loolu seen ñaari bunt yi ne mat xam nga loolu mën naa nekk lor loolu ba tey kon boo ko sañ ay xasrima wala gas loo xam ne yabbaru day lor bu jaar yi ci dëkkandoo fi xasri yi ci gasam ba ba in kaan ak doonte nekkoon na fi milki yi ci moomeelam nee na doo gas sax ci sa suufus bopp loo xam ne boo ko gasee mu yàqal ko dara dëgg la sax sa suufus bopp ngay gas gasoo ci suufam waaye la nga gas mën na ko yàqal mel ne muur bi nga xam ne moo ko def seen diggante nga leen di gas te wet ga ci sa biir sax ngay gasee ci sa biir kër waaye ci wetu mur ba la xam nga loolu mën naa yàq mur bi loolu doo ko sañ waqda def na àtte bil xaayitu ca sàkket wa li mel ñeel ki nga xam ne ilay jëm na ci moom alxumutu xer ya wal xuquudu ak takkun ya nee na ñaar nag buñ sëkkee buñ sëkkee aw sàkket xëccoo ko kenn maa ko fi defoon kenn maa ko fi defoon kon dañuy seet luñ aadoo liggéey foofa bu fekkee ne bu fekkee ne ni aadoo fii la nga xam ne borom sàkket bi xer ya ak takkun ya day jëm ci moom kon ko xew yaak takku ne jëm ci moom ne ko yaa moom sàkk bi su fekkee ne miir la ñu seet ni baaxoo miiree bu fekkee ne ku woon miir bi su ma féete moo gën a raxat moom moo gën a ratax laa bëgg a wax te loolu moo fii ci man bu ko ko raaxoo ci lépp li féete moom day ratax ndax dañu sakk diggante mool yi fu féete ci bit moom lu ci ëpp kenn du ko raax buñ ko buñ ko raaxoo rek lu ci ëpp day des ay ñaaw ñaaw fi daal moo ko gën a maase su boobaa ñaata ci loolu wala moom naa ko deeful tere faddu lu naay deseeti ndox li yëm naa ngir bu dee fi tere bi ci moom alkalaawu porlu ba porlu mooy fu ñuy sàmm rek dafa wax ne boo amee am ndox moo xam ne fa mu nekk moom yaa ko moom sa suuf la it waaye fa dem nag moom day porluwaay boo xam ne day sàmmkaay boo xam ne nit ñi dañ fay sàmm si lay tax ñu sawar faa sàmm si nag mooy xam ne fam ndox a ngi fi duñ sàmmee ba war a wëgg ñu wëgg ca waaye bu loolu amut duñ fa sawar a ñëwati nga ne lay kon naa aayu saa ndox mi ndax su ma aayu ndox mi ñu bàyyi ma fi sàmmkaay benn yoon ndax ñu bari buñ ci sawal ñu sa bu bu gu jotté ñu wëgg fu sori léegi na sama mom dess bi uti wo ci dara ci dess wi manam su ndox ni ëpp na la bu baax lu tax nga ko ay rek moy lolu moy fofu rek nga bëgg ñu fay sam ci dañ fa ñëwati lolu ëpp na def lolu ëpp na def wa ahlu awarin mashiyati ñun teenu jurba a xaq ñu gëna yee bi haa ci teen yi xataa yasqu ba teenu màndalee loolu bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo moom teen yi dañoo amul jur war a yëgg kon ñoo gën a amee sañ sañut yëgg ba àggal ndax ñoom ñoo moom ku moom dara la yaa ci gën a yee su mën naa fi topp nit ña sawaaw na yem wala ñu fi haa ci teen yooyu bu fekkee ne waroom teen yi yëgg nañ ba àggal nag waaw kay jaamuri moom ñoo ci yemoo door mën a jàll si wa man kaana koo xam ne nekk na fi ardi yi ci suufam aynun bëtum ndox aw biirum wala teen fa la foo ñeel na ko man waa ak aaye ñu ne soo amee lu mel ni soyaan wala ab teen boo xam ne yaa ko moom sa bopp bas ko ci sa suuf kon nee na bu la neexee aaye ko ne ne bu ci kenn wëgg si ndax yaa ko moom illa an tanhadima nga réew dafa màbb bi uru jaari yi teenu dëkkandoom wala foo te ñeel ko zarhum mbay yaxaafu moom dina ragal xale yi ci moom fala yam naxu kon du ko aaye fat bu des itam xanaa nag ki nga xam ne moo dem bayoo day mbayam suuxat lay bay te moom mbayam dem na ba nar a maral ndax ab teenam daa màbb wala soyaanam dafa sakk te amul fenn fu mu ko suuxatee te yow sa ndox mu yow te nga ci suuxat ba mu des mooy sa ndox mi ëpp na la waaye su boobaa dañ la dañ la forcé kon ne la faaw ba wax ko ci sa ndox mi ndax toolam bañ a yàqu waxtu bi fa yéeteef na ci nag xal xale yi ndax war na ko fii baalika ci loolu te mënul njëg am laa wala waru ko ja loolu ja yéetee mooy sa ndox mi ngay waxtu wax ne sañoo koo bañ ndax dalay fay wala du la ci fay loolu am na wuute wayam dox yi bañ a yellu an laa yam naa mu bañ a aaye arrajulu waa ji jaarahoo dëkkandoo ay yaxrisa mu samp xashabahoo bantam ci jidaari yi ci ab nuuram dama bu sañoon nag sa kër waa ji nga dendal mooy sa dëkkandoo lu mu ci bëgg rek te nga xam ne bu ko defee du wàññi dara du la wàññi dara nga bàyyi ko mu def ko jubal fa dañuy samp ab bant boo xam ne dañoo takk ak liiñ yu demee noonu daal ñu bañ ko bant moo woon lépp loo xam daal du la wàññi dara nga bàyyi sa dëkkandoo def ko moo gën nga di ko gànt wala waqu baa dee ko àtte nag xale yi ci moom lu tax nag boo bañee ñu dogu ci yoon yàlla faaw nga bàyyi ko mu def ko déedéet yaa moom sa yëf ñu seet li gën a baax rek ñu jëgal la ko waaye boo bañee yoon la ci àtte la ci forcé wama loo xam ne afsadat yàq na ko almasiyatu jur gi min azarhi ci mbay wala xawaayiti ak ay tool wala nga ne ay tookër bi léegi ci guddi fa daalika loolee xalaa arbaabi masiyati war na waroom jur ga bépp réer moo xam ne réerum guddi la dañuy jàpp ne guddi gi borom tool yi mën nañoo sàmm seen tool kon sàmm rek ñoo ratee seen bi bu guddee kon lépp lu ñoo xam ne borom guddi la rek dañuy jàpp ne borom jur gi moo war a fay ndax kenn mënta nekk di sàmm ba jëkk wala shay di dara nag xaalihum di leen war fi fasaadi nahaari ci yàqum bëccëg bi mu des nag réerum bëccëg réerum bëccëg moom bu fekkee ne fañ doon sàmmee sori woon na tool yi te jur ga xam ñu leen ci balam réer ba ëpp waaw dana moom fañ doon sàmmi sori woon tool yi ba jëpp ñëw na mukk buur gi mën naa ñëw ci tool yi te buur gi kenn xamu leen ci am na réew bu ëpp waaw kon kon bu dee réewum bëccëg mu demee noonu moom ñu jàpp ne borom tool bi na mënu rek loolu yàlla ko dogal waaye bu fekkee ne dañ dañ doon sàmm fa dend ak tool yi mbaa jur dañ ko xis xam ci aw réew boo xam ne am na réew ëpp na kooku moom faaw ñu ngi doon doon bëccëg day fay rek bëccëg di ko toogee fekkee ne amoon na sàmm bu doon sàmm jur gi te te ay jur gi ñu dem ci tool jaamur bi ba tey moom boobu daal di war a fay borom sàmm boobu daal di war a fay wala noo jëre koo xam ne fekk na sul atafoo marsandiisam fi taf ni si ci sisir sisir fa imma xaa sosa kon benn mu sompoo wa illaa ndeem sompoowut axaba mu jël sul atafoo marsandiisam in kaanat ndeem nekk na ndeem nekkoon na toarafu defu ko xam bi xëy ni xaa ci jëmmam dafa wax ne bu fekkee da ngaa jaay nit marchandise jot laa fay far nag nga fekk ñu koy sisir maanaam ay borom daa bari ba nga xam ne léegi moom dañuy jaay li fi nekk rek borom bari yu sompoog waaye kenn mënta matal kon bu fekkee jëmb lañ ko jaayoo mën nañ koo xàmmee mën a jëmb ji ne léegi te xam nga ne fay la woon yoon may na la woon nga jëlaat rek jëmb lañ ko jaayoon te yow bañ a dugg ci sompo bi jëlaat rek yow sa marchandise noonu waaye moom ñu ko wax day fekk muy jëmb ji laa ñu ko joo xam ne xam nañ ko ne lii nga ko jaayoon te loolu kon buñ ko weesu si la bokkut ak mu faatu bu waxoo moom sul mawti ci faatu waa ji usmatul xorama yi mooy moroomam way fayu ya la nga xam ne mooy royteefu way fayu ya ca des bu fekkoon ne waa ji si suñu ko daa faatu fekk rek am na loo ko jaay loo xam ne fay la woon jëmm jàng bi nga gis ne nag léegi bari bari na ba nga xam ne moom bu ko dee seet kenn du matal si jamono boo mën a jël la nga ko jaay ndax léegi dafa faatu léegi moom da ngay bàyyi rek li boole lépp soppoo ko ku nekk li la amee ci sa borom jox la ci la ko mën a jox rek wa daaminu aji gàddu zaalimun aji fay la ah boo nee ko lebal ko maa ko gàddu kon nee na bu fayul rek nga fay bu fayul rek nga fay waxal ne lu wëcc aji gàddu jëmm il la muy ëtti doon dikki bi ci jëmm ja xarina mu fay xataa yoo sori tambate mu sart allah yaxru mu bañ a fay maanaam gàddu lay ñaar gàddu bor bi ak gàddu jëmm ji gàddu jëmm ji mooy lebal ko man mën na maa dogal ne bu àggee ci war laa fay dinaa la ëllëg jëmm ji ba mu taxaw ci sa kanam ndax li la fay mo du la fay nag moom mën na ca dara waaye jëmm ji dinaa ko indi loolu mooy gàddu jëmm kooku ñu ne buñ ci àggee fa tey boo indi jëmm ji fay bu fekkee nag léegi jëmm bor bi nga gàddu woon moom buñ ci àggee fa nga fay amoon koo xam ne wax yi la soppeef na ko wala wëlbateef na ko bu dee ñu ci bor sarab ya te mu gërëm falaa rajo wax kon dootul dellu lu ñu gàddu jëmm kooku ñu ne buñ ci àggee fa tey boo indi jëmm ji fay bu fekkee nag léegi jëmm bor bi nga gàddu woon moom buñ ci àggee fa nga fay amoon koo xam ne wax yi la soppeef na ko wala wëlbateef na ko bu dee ñu ci bor faral ya te mu gërëm falaa mu wax kon dootu dellu la di ko ñeel xalal awali ci ci aji njëkk ja wa in aflasa ak doonte sisiri na xaaja kile maanaam bu fekkee dangaa ñëw di fay nit bor ñu ne waaw man day bii itam amoon na ma bor te ma laa boolee moom léegi xam ne man sama diggante yow jeex na moom ni ma am ni ma la amee li moom la ma amee la ma it naa la boolee moom kooku boo ko see nangu te nga xam ne wër mu ne kooku amel na ko rek jeex na day mel ne kon moom si digganteel moom jeex na kooku nga war a toppi ndax yow am nga nangu toppi kooku bàyyi ko kon nag loolu la yooyu boo demoon fekk ñu sisil kooku nga xam ni moom doo mën a matal sa war te kooku du tax nga sañ a dellusiwaat ci moom ndax yow nangu woon nga loolu illaa an yafur dafa yoon dara da koo war mën ci moom maanaam lu nga mu ne woon bi la nee naa la boole diw mu fay la nga nangu jeex na doo sañ a ñëwaat ci kii nga xam ne moo la booleeg moom donte nga fekk kooku ñu di ko sisil mbaa dara mais lu muy rek mooy ji la yebal ci moom moo la nax rek ndax ba ma ci yebal tam xamal na ne moom moom la yorul dara lu mu lay fayee dëgg la amal na ko war waaye xam na ne moom la amul amul lu mu fayee kenn ba noppi teewul mu nax la ba yebal la ca waaw su boobaa kon da nga sañ a delsiwaat ci moom mii wa innamal xawaalatu naka soppee xalaa aslu daynin day nekk cosaanal bor wa illaa ndeem bor amu fa fahiya kon moom xamaalatun ak gàddu la soppee rek mooy da nga waroon fay mu ne la naa la yebal ci boobu mooy amel na ma loolu boo ko doo dégg xawaale loolu la ci yóbbu mu ne loolu nag balaa wër fekkam la yebal ameeloon ko li wax naa naa la yebal naa la yebal ci moom fekk mu ameel ko bu yàlla dogalee nga dem kooku ne la ameelu ma ko dara dara ñu topp ko mu wër kon dañuy seet bu kooku nangoo seet ci baaxam daal koy fayal te topp ko moom baax na waaye bu fekkee ne kooka wax nga wax ne ameelu ma ko dara wër na te nu muy koo fayal it nga sañ a dellusiwaat ci moom balaa wër rek am la yebal fekk mu amel ko dara ay bu fekkee ne kooku moom amel ko dara bu ko gooka mënee gàddu fayal ko dara nekku ci waaye bu ko wax gàntoo it nga ñëwaat ci moom wala wax ramu du fay alxamiru aji gàddu ja illaa fi xudumil xarimi dara ci ñàkku aji lab ji am xayrati ci wala ak fàddoom nee na nag li tax nga gàddu nit tax nga war a fay mooy dañu àgg ci war a fay moom mënta fay mbaa boog nekk fa ñu àgg ci war a fay ba noppi dem gisuñu ko su boobaa yow ngay war a fay yow ñu ko gàddu woon wa yaxillu dana ay mi ne ay mooy dana jot bi mawtil matloo bi ci deewu kañu jiiñ man laa wax rek bi mawtil matloo bi ci deefu ka amee bor yi ak ka gàddu bor yi aw tafliis yi yowal ak sisiram kum lay nit bépp bor xale yi boo xam ne waroon na ko nee na nag moom mi nga xam ne moom la ñu sisir wala moom mi nga xam ne moo faatu su fekkee amoon amewoon na ay bor yoo xam ne dala ba jotagut bu tey ñooñu sooy boo ñëw ñu fay leen ndax ndegam ñu ngi sisir moom jur ta xaarati naa waxtu mu war a fay des na déedéet da nga ñëw si rek da nga ñëw ñu fay la bu fekkee ne kooku faat na itam noonu la nga diggante woon ak moom mu amel la ko du aajoo nga xaar dele ba jot da nga moom faat na rek da nga ñëw ñu fay la du xardale woowu ba noppi nag wala yaxillu du ay du ay mooy du jot maa la nga xam ne kaana nekkoon na lëfu di ko ñeel xalaa xayri yi war ko lu moom maanaam ci faatu la ñu sisir ko moom ci boppam bor yam gàddu woon moom lay wax ne seen borom dañu daal ñëw ñu fay leen duñ xardale boobu waaye nag ku ko amee bor moom des la mën a takk taxawal ne la tey nga fay tey nga fay te waxtu jotut waaw mel ne diw commerçant la woon rek faatu na démb bokk yi taxaw tey ji dañoo yaakam dañuy weraas fekk yow li nga ko ameel bu at mi deexee nga ko war a fay wala weer yoonu jëm bu dee du tax ñu suñ laa force ne la ñëw fay te ngay fay tey ndax dama yàkkamti la mu amee woon moom nu faatu moom moo war a teew ci seen borom sañ ñëw fay si ko waaye lañ ko amee moom tam jëm dele ñooñu am nañu sañ sañu bañ a fay si ba dele boobu jot yaar lañu bokkut wala tubaaxu deful jaay raqabatul mazuni baatu jaam bu ñu digal commerce fi ma ci la nga xam ne xale war na ko wala yu tabaatu defu topp it bi ci moom sayiduhu sangam ba jamono yi jaam amee koo xam ne dangaa dugal sa jaam ne ko dee jaayee ko jënd waaye am ci ne ko nag waxoo nit ne leen nag ku am leen teeg moom maa ko gàddu waxoo leen loolu dangaa dugal leen jaam bi ne ko dee jaayee ko jënd kon ku seq ak moom bor na xam ne jaam bi la ko seqal yow sang bi kenn la wax ne la yaa koy fay ko borom bor bi du wax ne daay jaay jaam bi fayu ci déedéet ndax yow neewoo leen man maa gàddu li ngeen di jox leen teeg moom da nga ko dugal rek yaxantuwaaye nag foofu nga yam mu ñu fa su def na tëcc al mudiyaanu ku bari ku bari bor li yus tabra ngir bu defi laablu ko man nga ne wa yus su def na tëcc al mudiyaanu ak lebaa kon li yus tabra ngir bu defi ko laablu laablu mooy seetlu ba xam daa mën a fay te fayut wala daa am sutura waaye am mënta fay dafa wax ne ku amee bor dañ gis ne boo dee xool ni ci zahiram moom day mel ne ñu mu duwee ko génn daal mën naa fay daa fayut waaye mën naa fay kooku yoon da koy tëj wóorlu ko ba xam daa mën a fay te fayit am daa mënta fay bu ñu xamee ne kii amee nay bor yoo xam ne war na koo fay waaye wóor na ne da koo mënta fay moom ba tee mu fay ko koo kenn du ko tëj dañ koy bàyyi rek ba keroog muy mën a fay te mu ñëw koy mënta ñàkk mu koo taxawal ne ko faaw rek kooku mu ñëw ko borom bor bi mu ñëw ko wamaa loo xam ne in xasama nangu naa séddaloo bilaa dara ci lu dul lor xusima séddaleef ko min rabxin ci pàkk la neexee ne kër wa xaqaayin ak lew nee na loo xam ne nii mbooloo ko bokk mu tàmbalee ci ñaar ëpp ñaar waaye seet nañ ne mën nañ koo séddoo te du yàqu ku ne jël wàllam bu leen bu leen bañ gaa séddoo gën a lee bu leen neexee bañ koo séddoo waaye bu leen neexee itam ñu séddal leen ko ku ne jël wàllam te tey nag bu leen neexee ñu bañ koo séddoo wamaa loo xam ne lamin xasim nanguwute séddaloo bi xëy ni dara ci lu dul lor fa man daxaa ku woote ilal bay jëm ci jaay ga ujj bi rek kon forceef xale yi ci moom man ka nga xam ne abaaxu bañ na ko léegi bu fekkee ñaar wala ëpp ñaar dañoo bokk loo xam ne su ko séddale ndax suñ ko séddalee moom mu yàqu ñu koy séddale rek moom mu yàqu nekk benn machine wal wala benn oto yooyu nga xam ne moom mooy su ko séddale wala benn peru daal ak kenn mënta bu wen daal bàyyi weneen kooku moom buñ ko mënee bàyyi di ko jëriñoo ni ki bàyyi machine bi wal ñu séddoo la cay bàyyi ko mbaa bàyyi oto bi daw ñu séddoo la cay bàyyi ko lépp baax na waaye nag bu fekkee ne mënuñu loolu kon say woon jaay ko ñu koy jaayub jaamu séddoo njëgg ndax man ma resta séddoo jàmm ji wa qasmul qurxati séddaleeg tegoy bant laa yekkoon du nekk illa fii sin fi dara ci xeet waaxit muy wenn nangu nañ séddoo tegoy bant waaye day aajowoo muy wenn xeet bu doone lu mat ñaari xeet mbaa lu ko ëpp dis ko woon tegi bant bu dee séddu kese mees na koo tegi bant ndax bu dee wenn xeet rek mees na koo tegi bant waaye xeet yu bokkul ci miraas na ko moytu léegi na fa am ci miraas nga xam ne dafa gis saam day gën a yomb waaye moo ñu fàtte ne doo su boole yu bokkut maanaam faaw rek bu dee séddu moom séddu mën nañu koo seet def koy saam xayma saam yi ñu jële ko xayma jëñ wax waaye dis mën a boole saam ak leneen wala yu addi te du jox ahadu shuraka yi kenn ci way bokkaale yi fa mën a njëkk ñu nangu itam am koo xam dañ koy saamaale mu tegg saam waaye day fay njëkk loolu bu ko defee day mel njëkk mu fay bokk na ci lañuy séddale day mel ne kon léegi donte wenn xeet ngay saamit ñaari saam la léegi ndax njëg gi muy fay dañ koy compté waale ne njëg moo ma tax di tegg saam ci njëg googu muy fay ca la loolu moo tax di ko nangu wa in kaana del nekk na fi zalika ci loolee taraajuxun ak del bante la ngay gis kon du dagan alxasmu séddale ga illaa bi taraadin dara ci ak gërëmante
am nañu wax ne lii dafa gën a leeral masala ne mu wees rek ndax sama nan njëg jéem wax sax dooleen dong lañ ci jublu mooy daa wax ne buñ di tegoy bant yoo xam ne dañoo sart ku jël saam bee da nga delloo sa morom nangam su boobaa kon du dagan ci kaw sin maanaam du dagan ci kaw buñ ko dee tegoo ay bant waaye buñ ko defee xismatul muraadaati te mooy ñu def noonu ba àggal daal di seet ne juboo nañu ci ñu ñaar daal buñ ci tegoon tey bant koo ci xam ne neex na la nga féete woo bee te loolu sa morom juróomi téeméer yi wala nga féete woo bee sa morom moom loolu la juróomi téeméer yi xam ne loolu lañ ko tegooy bant dañ koy waxtaane ba juboo rek ci kee féete woo lee kee féete woo lee te ko féete woo lee delloo juróomi téeméer morom ma waaw loolu moom kon baax na waaye buñ ci tegee muusante tegu koy bant rek mu daal di yàqu
wa wasiyul wasiy kañu dénkaate kañu dénkoon kan wasiy ma nga mel ni kañu dénk maanaam yooyu jamono kat daw ñu bàyyi ab jurum rek noonu ak boppam dañu am kuñ ko dénk benn waajuram wax kuñ ko dénk ne ko yow laa dénk jurum bi mbaa yoon moom seet kuñ ko dénk waaye daw ñu ko bàyyi noonu ak alalam déedéet muy nag léegi ki ñu dénk bu doy la waatee keneen dénk ko waaw kookee mu doy la waat muy was jul wasi kooku nee na lépp lu kuñ dénkoon lépp lu kuñ dénk sañoon rek kañu dénkaat tam sañ na ko ay ñoo bokk àq ci kooku wala way wës yi ñel na ko ñu dénk ay yet tajure mu yaxantu bi am waal yataamaa ci alali juróom yi ba yu mu jot
wayu zawwija te muy wutal jëkkër ima ahum seeni jëbeer seeni jëbeer mooy seeni jaamu jigéen
Eh, bu la dénkee ab juróom xam nga ne alal ja boo ko fa bàyyi noonu asaka di ci génn at mu nekk rek day daal di gaaw a wàññiku gaaw a jeex kon nag say boo seet bu fekkee ne mënees na koo jox koo xam ne ci yëngatu mu yokku moo wën te yow ci sa bopp nag nga bañ nga bañ caa liggéey te jox ko jaambur xam ne jaambur moo ci liggéey ndax mu yokk bu fekkee ne gis nga ne jébboor bi nga dénk am na ay jaamu jigéen te jaamu jigéen yi téye leen di leen bindal rek daanaka yàq alalam lay doon bu la neexee kon wutal leen jëkkër ñoom jaamu jigéen yooyu bu lay jaamu góor it noonu loo ci gis rek yow mi baax na wamun aw saa koo xam ne dénkaane na ilaa xëy ma amoon jëm ci kudd ku ñu wóolu fa indaxoo naka moom yow asalu def na ko folli nee na nag koo xam ne dafa fekk koo xam ne nekkul ku doy mu daal di koy dénk ab jërim kon yoon moom da koy daal di dindi seet koo xam ne doy na mu jox ko kooko waaye du ko ci bàyyi ayub daw def na jëkkee bil kafani ci càngaay la su ma day ni topp bor ba suma wasiyati topp dénkaane suma miraasi topp ab dono nee nañ bu ñu sañoon lii mu wax ko ci fee muy jàngalee miraas ndax foofu la xawaaju daa wax nit bu bàyyi ko génn àdduna lam bàyyi lañ cee njëkk a seet mooy lañ bi lañ lañ koy waajale ba jébbal ko boromam niki càngaay la ak buñ dee fay ñuy sang wala buñ dee fay ña koy gasal ak lépp lu aju ci waajtaay yooyu tax ñu jébbal ko boromam daal loolu la ñu njëkkee bu loola jàllee ñu seet bor yi ba xam fay leen fay bar moo ci war a topp bar mu amee woon ñu fay ko su fekkee ne bar wi jàll na ba mat ñu seet ba xam am na lu mu dénkaane woon ne su ma fi bàyyee nañ ma ko defal ci sa alalam déet loolu nag ko defal ñetti xaaj benn xaaj bi ci la ñu génn dénkaane ñaari xaaj yi des moom ñi doon ñoo ko moom wax nañ la ci gannaaw nee na bu fekkee ñoom ñi doon nangu nañoo wéyal dénkaane yi te fekk mu laal seen wàll woowee seen ñaari xaaj ñooyee bari nekku ci waaye bu leen neexee bañ kon nag buñ génnee dénkaane bi rek la des kon dañ koy daal di miraas su dénkaane bi des génne bi nag mu des sax ñu boole ko la ñuy miraas daal di koy miraas nag lay séddale ci yoon ku ne jël wàllam wa man xaasa ku làq daaran kër ala xaadulin ci aju teew xasoo si ne fukki at tun sa bu def na askan kër ga ilayhi jëme ci moom wa saaxibu xaati boromam xaadirun aju teew la aalimun aji yëg la laa it daxi du woote fee an dara falaa xiyaama kon déetu taxawaay la di ko ñeel moom masal daañu ko faral di wax ci téere yi maanaam bu fekkee ne nit dafa nekk ci kër di wax naa kër diw mu ci defee ko dund ci tabax tabax lu toll ne fukki at bu fukki at yi matee am koo xam ne mi ngi fi woon booba léegi demutoon fenn gis ñu def loolu ak a wax loolu mu ne nag tey maamul kër gi te fukki at boobaa léegi mat na ko kooku dañuy jàpp ni moom loolu muy wax kenn du ko déglu dañuy jàpp ni ki nekkan ci kër lu toll ne fukki at di ci defee ko dindi li ko wax ni moo ko moom rek moomul kër gi bu kooku ne maa ko moom rek ñu ne ko wax nga dëgg daa jëwoo ñu déglu wax yi kii ci bëgg a jàpp. ci kaw ñu ay jaamur wala xiyaasati déetug làq benn aqaay bi ci diggante jegeñaale yi wala asxaar yi ak ay goro fi misli haadihi l muddati ci kem bi la diir loolu kat bu fekkee ne ci wax ne léegi maa ko moom te nekkal fi diiru fukki at yi dañ ko seet muy mbokkum waa yi ci nekk mbaa muy ab gorom moom daañu ko gëstu ci yoon ba xam fu mu tëdd dëkk fu mbir muy féete ndax xam nga ne sab goro la nga koy muñal ak sa mbokk la nga koy muñal moom mën naa nekk ci sa pàkk mën naa nekk ci sa béréb di ci def ko dindi te doo ci wax dara doo wax ni sax mën maa ko moom kon nag lu tal ni fukki at du ci doy bu fekkee ne fukki at yi mat na mu wax ni lii sama maa ko moomoon yoon seet ko ba xam waaye fu yoon dana seet ba xam jooju ndax mën naa nekk dëgg bu nekkee dëgg mu jox ko dëgg wala yajuusu lu dagan iqraarul maridi saxaluk aji tawat li waari fixi ñeel aji donnam bi day nin ci bor maanaam nag koo xam daa tawat tawati faatu yoon du ko may mu wax ne sama yaay ji mbaa sama doom ji maanaam kenn ci ñu war doon mu ne ameloon naa ko bor loolu la ñuy jàpp ne kon dañ koy tuumaa ci ne da koy yónni alal bu ko tuddee bor rek moo tax loolu moo tax li nangu mu ne amel naa ko bor aw bi xam di ci wala ci mbirum yëpp muy fayu su fekkee xamal ne ni moom tawat na xam ne ni moom moom mi tawat na tawati faatu te soxnaam si ameloon na ko nangam ba doom ji ameloon na ko nangam mu ne nag léegi seere leen ni kat ameloon na ma nangam waaye fayoon na ma ko loolu boobu ay seere bu ñu ko nangu ndax dañuy jàpp ne kon da ko bëgg a may loolu bor bi rek tax mu waxee ko noonu ba tey saxal ngeen wax ne léegi ne du sañ wax ne amel naa sama soxna si bor mbaa sama doom ji ba tey loolu bu amee seere moom baax na waaye boobu seere bi waxee kese noonu du su ko nangu man aw saa ku dénkaane bi xajjin ci aj boo fi fekkoon wéyaleef ko wala wasiyatu waaye dénkaane bi sadaxati ci saraxe ah bu ma gën a sopp li naa jëm ci nun malik nee na koo xam ne ngaa dénkaane su ma fi bàyyikoo nañ ma ajali kon bu fi bàyyikoo ñu seet ci alalam fay kenn mu ajali ko waaye nag lu gënoon de mooy mu ne woon sama alal ji boo fi jógee nañ ma ko saraxeel nangam ñu ko defal ci yoon yàlla loolu de moo gën boo fi jógee nañ ma ajali teewul nag sañ na ko bu ko waxee ñu defal ko wax wa isa maata ndem faatu na ajirul xajji bàjjub aj bàjju aj mooy am pour waaye aj kañ jëloon ngir mu ajali ka ko dénkaane woon rek mooy ajirul xajji xam la an yeesu la ci njëkk muy àgg sama fa kon ñeel na ko bi xisaab yi maa ci rek rek la nga xam ne wala ci xisaab la nga xam ne saara dox na ko wa yaram du tamit delloo maa la nga xam ne baqee des na nee na bu fekkee dañu waxante woon diw ne ko yow kat kaay aj kaay ajali diw ndax dénkaane woon na ko gis nga moom ci foo ko nangam ne ko nangam lañ lay fay daal yow nga ajali woon mu mu dugg ci ba yàgg nag farfaatu xanaa moom mi doon ajali kooku mooy it farfaatu kon dañuy seet lim jot a dox mooy li ñuy seet fa mu jot a àgg rek luñ ci war a fay ñu fay ko lu toll noona foofee mu toll woon ñu fay fa keneen mu tàmbalee foofu du aajowoo ñu koy ñu fay kenn fii ci dëkk bi ndax loolu kon ak ak yàq alal lay doon dañuy seet rek fa nga xam ne fa la toll woon bi mu ne am ku doy ñu fay foofu keneen na kooku jàll te moom mi la ñu fay ay mbokkam moom lim jot a dem. wama loo xam ne xalak alkoona it bi yeddi ci loxoom fa moom moom min tukkee na ci moom su fekkee ñu wax nag moom leer na ko nun daal million lañ lay wax nga ajali ko lu wér la kon nee na million boobee buñ ko joxee lu ca mën di buñ ko sàccoon mbaa dara xew ci it moom loola moo war a fay rek moom daal wàccoon nañu moom loola moom moo ci yi ah la ma yàqu illaa an ya aqusa ndara bi la fa jëloon almaal alal ja xalaa an yun fiqa ci kaw muy dundale xalal balaax yi ba ca àgg ga fa damaanu kon gàddu wa mi ne lëfi ne tukkee na ci ñi nga xam ne waajuruuxu yoolante woon nañu moom loolu dañoo waxante woon ak moom ne ko rek ajali ko tan gàddu la fere yi xam ne néew ni ko lim sàngam lañ la jox nga ajali ko ñu ko ne woon daal fere yi moom noo ko gàddu kooku moom bu fekkee dañu ko jox dara bu ñu wutikoo ne tafu nañ ko mbaa nangam xew na ca ñoom faaw ñu war ko joxaat ndax léegi waxante wu ñu moom genn fay ko wóoruñ ko wax ne ko rek fere yi noonu noo ko gàddu loolu nag kon lu ci ya lu ci sànku rek ñoom ñi seqamul loolu ñoo koy joxaat wa yaruddu moom it dana delloo maala nga xam ne fadala des na in fadala ndeem des na cheyun dara xam nga tey li nga ko jox na moom itam bu desee rek les war na koo delloo ndax fare la
baaban li ab buntu fil faraidi ci masalee miraas maanaam lu aju ci ko fi bàyyi ko alalam nañ koy séddalee ñu ko yoon jox loolu mooy miraas mooy addis bi daa waxam ne na ngeen jàng miraas te jàngalewaat ko ndax day dina dem ba yàlla ñëpp xam-xam ñëpp yonent te ñëpp xam-xam ba nga xam ne ñoo danañ jëlee ci am masala te dañ te dañ gis ku leen ca teqi maanaam ku leen ca atte moom la ñu koy séentoo defee mel ni jafe jafewul noonu bu fekkee ne am nga takku ak farlu rek nga ne na nga ko mën a xam bu baax ولا يرث بدون من الرجال جبور إلا حشرة دو فك dañu wax naa ñi doon ci góor fukk la yoo xam ne boo ko feccee muy fukk ak juróom li ñu wàññee mooy téere bi fukk la waaye boo ko teqalee mu nekk fukk ak juróom fukk ak juróom ñooñu rek ñoo war doon ci góor lu weesu ñooñu ci lislaam góor gu génn fukk ak juróom rek du doon al ibnu doom bu góor waa banal ibni ak doom bu góor doom bu góor daa tàmbalee ci doom bu góor teg ca sët bu góor bu bàyyi ko ci doom bu góor waaw kon doom bu góor wàññi ko teg ca doom bu góor bi nga xam ne sa doom bu góor a ko jur mooy rek sa sët bu góor bi nga xam ne sa doom bu góor a ko jur mu ñaar wa in safala ak doonte suufe woon na doonte sëtaat la baa muy sëtaataat waaye diggante nag maam ji mu doon ku ko gën a jege nekk fi rek du ko tee doon wala abu ak baay baay day doon doon ja ba tax ñu wàññi ko wal jadd ak maam mu góor bil ada ñeel wàllu baay wa in xala ak doon te kawe woon maanaam boo wàññee baay da nga cee teg maam ji góor ji jur baay waaw fekkee ne baay nekk fi maam ji góor jur baay day doon su ko defee nag maam ji góor googu mën naa nekk sax maamaat wala maamaataat li fekk nga xam diggante nag sëtam bi ku gën a jege doxu fi rek dana mën a doon maanaam kon mooy doon loolu mooy wa in xalaaj wan axu ak mbokk mu góor mbokk mu góor mi ñett la mbokk mu góor mi nga bokkal ndey ak mi nga bokkal baay ak mi nga bokkal ndey ak baay kon loolu ñett la wa bunul axi ak doom ju góor yi mbokk mu góor dafa am yaari mbokk mu góor yoo wax léegi yoo xam ne seen doom day doon maanaam sa mbokk mu góor mi nga bokkal ndey ak baay doom day doon sa mbokk mu góor mi nga bokkal baay dong ba tey doomam lay doon mu des nag sa mbokk mu góor mi nga bokkal yaay dong kooku moom doom du doom wa in baxut ak doom ci sori woon bu ko see doon doom bokk rek moom lu mu sori sori waaye ku gën a jege amu rek moom dina doon wal xam ak bàyyi tax ko wax bàyyi tax waaye mooy bàyyi bu ndaw bàyyi tax mooy ki bokk ak sa bàyyi ndee ak bàyyi dana doon ak ak ki bokk ak sa bàyyi benn bàyyi dana doon bu génn kenn nag ki nga xam ne moog sa bàyyi ndey dong lañ bokk waaw kooku moom sa bàyyi bu ndaw la waaye dina doon wa bu nga xam ne ak doomu bàyyi tax maanaam ñaari bàyyi ndaw yi nga wax léegi lay tudd rek seeni doom ngaa tudd léegi sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi ak sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ñoo bokk benn bàyyi ñaar ñooñu nag nga wax seen doom bu fa nekkul rek seen doom ay doom waaw xam ne nga nag bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ndey dong lañ bokk du doom kon doom du doom gàttal ba ñu baaxul ak doom te sori woon na doom te sori woon na mooy bu xasee doon doomu bàyyi bu ndaw rek moom te gisuñu koo gën a jege ci ñaar doom rek moom mooy doon mooy sëy bi ak jëkkër jëkkër day doon soxna jabaam moo tax ñu ko yënguwaale ci loolu ñu doon ba may leen ñaamati ak góor gu xëy la ngor góor gu xëy la ngor mooy ku waree lib jaam dama lay jaam amee soo goree lib jaam te jaam ma goreel dama ko war a doon ba am na ko waaye du jeexal kon desoo yaa ko jël pour mu jeex bu ko amul yaay doon lépp kon ñu wàññal la ci benn benn ñu war a doon ci góor rek ni mu doon fukk juróom te bindal nañ ko ci ko it mën ngaa wax laaj ñi ko amoon ci kaw ni ko nga nga xool xool mokkal ko dama wax ñu doon ci góor fukk la yoo xam ne boo ko fekk yéen fukk ak juróom doom ji góor doom ji góor doom ji góor bàyyi maam ji góor jigir bàyyi mbokk mi nga bokkal ndey mbokk mi nga bokkal bàyyi mbokk mi nga bokkal ndey bàyyi doomu mbokk mi nga xam ne yaag bàyyi ni yéen a bokk ndey bàyyi ak doomu mbokk mi nga xam ne yaag bàyyi ni yéen a bokk benn bàyyi ak sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ñoo bokk ndey bàyyi ak sa bàyyi bu ndaw bi nga xam ne moog sa bàyyi ñoo bokk bàyyi doom ak sa doomu bàyyi bu ndaw bi nga xam ne seen ñaari bàyyi yoo bokk ndey bàyyi ak sa doomu bàyyi bu ndaw bi nga xam ne seen ñaari bàyyi ñoo bokk benn bàyyi ak jëkkër ak góor gu xéelu ngox wal boo ko wàññee def ko juróom wala wala yaritu di doon mën a misaay ci jigéen ñi xëy na fàttali lu mu juróom ñaar maanaam jigéen ñi juróom ñaar moo ci doon waaye mooy itam boo ko fekkee muy fukk ak binti doom bu jigéen yi ndigg wa binti ibni ak doom bu jigéen yi doom bu góor wal ibni ak yaay